rahmatullahi wa barakaatuhu euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaara oustaz Cheikh Sadibou bu gën a siiw ci ñuy wax ci islam ci télé Sénégal def émission ci 2A TV di ñaan yàlla tabaraka wa taala président yàlla na yàlla dooleel ko jàppale ko ndax bu ma jàngee li muy waxtaan nii li mu njëkk sumb yonent bi moo indi l'islam wala moo ko gën a leeral abu Aboubacar li taxoon gouvernement am ñu xawoon jafe da def pour problème mu impôt yi Omar Ibn ñëw nag def comme li jumaay def raxasaat bale Omar dafa indi jub ñi jubati ñëpp te dëkku ñu dëkk mu génn leen ñu jub ne ci dëkk bi mu yedd leen kon bu indee lii ñetti la la ko jànge mooy jub imaan irsaat mooy orienté di ñaan yàlla yàlla ak yàlla may ndam euh, monsieur le ministre d'État comme euh, docteur cabinet nee naa ko donga daara nga ku baax nga dafa am loo xam ne dama koy dolliwaat ci xam-xam en tant que sénégalais mais am ko gëm am ngëm-ngëm li ñu fi liggéey yëpp baax na mais nañu ñaan yàlla subhaanahu wa taala yóbbu ko ci askan wi ñu déglu ñu mais nag du luñ suñu xalaat luñ fi tënkoon la fii lañ ko nasee indi ko yàggul ci jamono Abdoulaye Wade indi nañu foon benn livre arabe bi ñuy def Abdoulaye Wade jël na un milliard dem na ngeen jënd livre arabe indi ci réew mi ko ko yoroon mooy euh, monsieur Daouda Niang nekkoon mer député euh, kii euh, maire Tëngéej maire Tëngéej bi yoroon UGP daal di ne déedéet comme doomu réew mi ay borom xam-xam ne leen jël tëj leen ci hôtel ñu xalaat tënk ay téere indi ko ñoom docteur Khadim Mbacké docteur Abdou Aziz Kébé ñoom mel noonu barakallahu euh, li ma bëgg am rek mooy que ne damaa am lu ma bëgg ñun sunu doom yi ndax kullu mawludi yudu alal fitrati yent ne ku juddu ko ne innocent nga la mooy innocent ko xamul dara ndax xale bu juddoo xam du xam lenn lu dul weeru yaayam mais su baaxee yow la su banee yow la bu nekkee maajus yow la bu xamul dara yow la moo tax mu ne kon laa tadaaruku kom doom kenn du ko abandonné kon lu bëri li ngay dégg ci violence yi ñàkk ñàkk toppatoo say doom la yëg ñu bëri xamuñu ne état mooy quatrième position bu bu yar nit quatrième ndax yaa ko yar juddu ko màggal ko jàngal ko mu ne ma màggat nga am ci moom yaakaar mu tas yaakaaram état doog a ñëw noonu lañu islam jàngale kon ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala nañu respecté suñu autorité wax naa ko rek ñii nekk ay avocat nekk ay juge monsieur le ministre de la justice may ñaan monsieur le président nañ leen sécuriser un procureur un magistrat di plaider ba par bu génn taal otom di dem lu nem na ko xat ci diggante bi ana policier gendarme ñu sécuriser leen confiance moo tax yonent ma ida ataakumul karimul qawmi fa akrimuhu bu lay bu nit ku yàlla ñëwee wala autorité ñëw fu mu leen fekk mooy jox leen ko waram di ñaan yàlla subhanahu wa na ndax jëmm ji toog mooy suñu seexu suyux mu imaam Dame Ndiaye mii mënu maa wax ci diina te mu ngi nekk mooy suñu kilifa di ko ñaan yàlla subhanahu taala ñun daal buñ ñu buñ ci feeñee lu ngeen bëgg dañ ko am wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, imam Diaga maa ngi jox parole bi Fatoumata waaw madame waaw euh, je me présente d'abord c'est euh, Fatoumata Fall épouse Camara je suis consultante en architecture formatrice de formateurs et directrice générale de l'école des chantiers BTP. Donc je parle de la réinsertion sociale, de la formation professionnelle dans les prisons. Il y a des détenus qui n'ont pas de métier. Donc je propose une formation professionnelle, une formation initiale dans les divers métiers, avec des tests prérequis et un choix faits par les détenus, mais aussi de la valorisation des acquis de l'expérience des détenus ayant une qualification pour une insertion sociale à, euh, à, avant leur sortie, de les accompagner hein, par, par exemple par un financement ou, ou les aider à avoir un emploi pour devenir des salariés des auto-employeurs ou des chefs d'entreprise. Mais je propose aussi pour l'ordre des métiers. Je propose ordre des experts des bâtiments. L'ordre des, ex des experts des bâtiments, il y a les architectes qui élaborent les plans d'architecture.